Euh, ñu won leen l'observateur mi xëy tey ak ki nga xam ne nii euh, mooy xalif généralu Tidiane yi euh, di Al Amine ñu ngi liir ci xët bi shérif ci français ni Al Amine met en garde les politiques. kon mu mel ni rek dànkaafun na way politique yi moom Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine xalif général Tidiane. nee na rek buñ dakkalul seen xiiroo ngaayooge kàddu yi ñaga si nemmeeku daal ci géewu politique bi boo sàggunul mën naa jural réew mi guta ba sax ci wàllu guerre civile moom na rek lim gis daal muy ñëw dafa mel ni rek euh, dalul xelam gis nañ tamit euh, ay témoignages yu euh, El Hadji Mansour mbay daal di amal lekk ci Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mi ngi ci yéenekaay bi mbiram tamit kii di Serigne Moustapha Sy yéenekaay bi wax na ko ak chiffres yu doy waar ci wàllu prison yi mu mel ni kon nemeeku na ni ci juróomi at yi ñu génn lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak ñetti doomu aadama faatu nañ ci prison yi ak téeméer ak fanweer ak juróom yoo xamante ni daw nan rëcc ci yooyee kaso Pape àggali seen dëcc jëm ci Al Maktoum ba ci le quotidien ni l'observateur xëy na ak dankafuk xalifa gi euh, Tiwaawan confidence du défunt Khalifa Lamine l'ultime avertissement de Al Maktoum loolee la liir euh, ci xëtu le quotidien le quotidien daal di rek daal di ne moom kilifa gi laata muy du àdduna daal dafa mel nii lii la wax li mu gis muy ñëw ci Sénégal daal dalul xel ba tax na rek dànkaafu googu ni nga ko waxee ngir ñu moytu bépp fitna Serigne Mbaye Sy Mansour kon moom mooy porte parole bu bees bu confrérie bu Tidiane. liiraam ci ñag bi la jëm bu ñu moytuwul dinañ fi gis euh, guerre civile maara day taali ba ci le témoin euh, dankafuk xalifa bi euh, mu ngi ko tuddee mise en garde de Alamine aux politiques. mu mel ni kon moom it Serigne Abdoul Aziz Sy ba léegi mi ngi ci xëtu yéenekaay bii di témoin jëm rek ci. tolluwaayu réew mi ak tamit melokaan yenn ci acteurs politiques yi moom nag ba tax na rekk sàkku na ci ñoom ak dal ñu jiital intérêt Sénégal bàyyi rek xiiro beeg ngaayo geeg kàddu yu ñàggas yi ni jokkalante loolu nag bu saagnu rekk mën naa jur comme ni nga ko waxee guta gi nga xamante ni daal euh, wax nga ko sànq. saaga yeeg xaste yeeg wax yu ñaaw yeeg yenn ci mu tuddee accusation gratuite euh, ba tey bokk na ci mise en garde euh, yu xalif bi las ci la xëy tey ak nataalam moom Alamine ñuy lire ci xët bi ci français nii les sévères mises en garde de Alamine. ba léegi rek moom it mu ngi rek dànkaafu way politique yi moom Serigne Abdoul Aziz Al Amine ci boppu yeneen kaay bii di las ngir rek ñoom ñu gën a ànd ak responsabilité. su ko defee dina mën a muccal Sénégal ci yenn musiba yi nemeeku yenn réew yi. mbir moomu leen ni yéen yëpp enquête sax ci la xëy ni le sermon d'Al-Amine. mu mel ni kon moom sëriñ Abdoul Aziz Al Amine rek xutba gi nga xamante daal jagleel na ko. way politique yi jëm ci violence yeeg këral yeeg invective yi ci wàllu politique bi loolu it yéen kaay bi ci la daal di ñëwaat tey. même son de cloche ci xëtu yéen kaay bi di euh, tribune nous marchons euh, vers la vers la guerre euh, civile Vox Populi même chose les mises en garde posthumes d'Al Maktoum aux politiciens ci xëtu direct info ñoo ngi ci seen itam ki yore porte parole. xalif général Mouridi euh, di euh, Serigne Bass Abdou Khadr euh, ñuy liir ci xëtu yéenekaay bi ci français ni cant annuel de Cheikh Mansour Diouf à Yoff la communauté lébou déroule le tapis rouge à Amadouba démb la amoon askanu lébu rek doon amal ay cant fële ca Yoff ba tax na rek yéenekaay bi nañu ministre bi ñu dénk wàllu koom-koom ci réew mi dafa mel ni daal moom teral nañ ko fa démb ca xew-xew Khalifa Sall libération ci la xëy tey ak nataalu maire bu Dakar scandale financier présumé à la mairie de Dakar le DAF avoue l'usage de faux au doyen des juges. waaw mu mel ni directeur bi ñu dénkoon rek finance ca mairie bu Dakar daal nangu na ni ñoom mbiram njuuj njaaj amal nañ ko rek jëm ci mbiram caisse d'avance ak koppali nañ ko jëfandikoo ci kanamu doyen des juges d'instruction. bu nu sëkkandikoo ci yenn kaay bi nañu daal am na ay factures yu ni daanañ ko jëfandikoo. ñu jeexal ak sunu lamb mi xëy tey ak Modou Lo ay kàdduk mbay Mbaye coach principal euh, bu Rock Énergie Modou Lo sera physiquement et tactiquement prêt. jëm rek ci wàccaayu combat bi nar a dox ci Modou Lo ak Lac de Guiers numéro 2 ba tax na rek coacham bi moom nee na daal ci wàllu physique ak tamit tactique daal moom dina pare bala ñu yegsi ci combat bi nar a dox ci diggante ñaari mbër yooyu. li ci des dañu koy bàyyeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye.